Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw lii de dañu ne woon rek ñu ñëw jëmal ko wante du euh, lu ñuy war a daje sax ngir di ko wane euh, dafa fekk rek muy loo xam ne xëy na ñu gis ko am nañu ko gis dana xam yitte ji ñu am ci jàpp ne lu faratala loo xam ne du du du du lu du war a nekk lu yéeme ci daaw lañ ko waxoon waa kër gi ne dañ ko bëgg def ñu taxawoon ci ñoom ne dañ koy def buñ ko waxee nag fekk Sidi mi nekk Allemagne ñu daan ci waxtaan ci at yële ak kàbbu ñu waxoon ma waxoon ne eh, jumaa ji fu toll ne fii ak ni mu sellee Euh, lu bon bon am na barab boo xam ne fii ci biir kër gi ñu bari ci jumaa ji fi lañ ko fi la ñuy defee seen yitte euh, ñu ne woon nag lu barab mbir moo xam ne mbiru doomu aadama la ndax nit ki dafa war a set wante nit ki tamit dafay soxla boppam te fu ne mën na ko faa defe mën na koo soxlaa boppam kon nag ginnaaw fu ne mën na faa soxlaa boppam fu ne it war na faa mën a am fu mu foo xam ne bu soxlaa boppam man ko faa man faa man faa dem te loolu toilette ci la bokk toilette nekkul lu ñaaw nekkul gàcce dara nit ñëpp la pour mbiru nit la euh, li ñuy tuddee sobe bala ko nekk dafa génn euh, waaye feeg nit a ngee di nit bu demee woon nenn ni xëy na desu ko mën a waxee ci waxin wi ñu ko mën a wax waaye li am solo mënta ñàkk ci doomu aadama kon nag bu dee barab bu sell bi di jumaa eh, ñu gis ne léeg-léeg jamono ji jafe surtout bu dee xew-xew yi màggal wala dara gan ñi nga xam ne dañuy jóge ci biti wala ci biti bi biir ci biir réew mi sax wala sax ñi fiy ñëw di dañuy am jafe-jafe lool léeg-léegi mu am lu yéeme yi ci nekk ci biir mooy eh, ñoo xam ne dañuy dem parce que nit rek la ñu foo ko soxlaa moom boo soxlaa sa bopp moom moom mënatoo nekkatoo sa bopp kon war naa am pour nit ki nekk nit ku nekk nit fu nekk rek lu mel noonu dafa war a nekk moo xam ak mu ngi def mu ngi mel ne nag fa muy war a nekk <laughs> kenn du wax ne juma bu fa nit soxlaa boppam fañ koy fañ koy defee ci biir juma ja déedéet waxuñu loolu wante dañu jàpp ne na nit ki a loru ba bañ a loru ba nga xam ne fa mu koy defee bu ko jotee ci moom te amul fu mu ko defee mën na koo defee sax ci biir juma ji bu ko defee loolu moom lii buñ ci ñëwee mu am lii ñu jàpp ne lii loolu rek moo ko tax ñu wax leen ko ñoom ñu taxaw ci def ci seen coono muy loo xam ne jàpp naa ne nag xëy na kilifa yi bàyyi am na ci xëy na buñ ko yëgee jombul ñu gën ci bàyyi xel ndax bare na ñoo xam ne ci bu dee jamonoy màggal wala dara ci buntu kër ci miiri kër sëriñ ji la ñuy def la ñuy def te doo ci mën a wax dara parce que day fekk boobu itamit nag du doon lu mën a ñàkk ma defee ne kilifa yooyu yëpp bu ñu leen yëgaloon nenn li jombul kër yu ci bari surtout yi nga xam ne moo wër fii bu fekkee amul foo xam ne réservé nañ ko sax ci wetu ci foo xam ne war nañ faa mën a def yi nga xam ne fu nit soxlaa boppam ku ñëw fii eh, defe naa ne kon loolu moo tax ñu ne ñu lii ñi ko def nii ñu julli leen ci sant di xam ne rek lii rek moo ko waral eh, jàpp nañ ne daal farata la te war nañ ko bàyyi xel bu baax waaye barab bu toll nii ak ni mu selle ak ki fi ne nit di fi ñëw di soxla boppam am na ñoo xam ne sax léeg-léeg dañuy dem ba sax ba wutul dootuñu fi ñëw parce que dañu fi am jafe-jafe boo xam ne <laughs> du duñ mën a xam ne lii nit mën na ko mën na ko am ci jafe-jafe ci wàllu googu bu ko defee nag te te it nag muy loo xam ne ku ne mën na laa dal nag ndax doomu aadama la nekkul sikk ci ñëw wala lu ñaaw ci nit wala loo xam ne day gàcce ci nit nit a koy def nit la waaw bu ko defee nag loolu rek moo tax ñu am mbégte ci ubbi ko di ñaanal ñi nga xam nag ñoom lañ ci taxaw si si di ñoom ñi ak kàbb ak xale yi nga xam ne ñoom tam ñu ngi ci di jàpp ñu xam ne lii daal euh, mooy li nga xam ne liggéeyu sëñ Touba la liggéeyu sëñ Touba nag defe naa weesuwul euh, faj soxla si nit soo xam ne yow rek ko mën a fajal ndax loolu mbir la moo xam ne ku ko ko fajalul rek euh, defe naa ne duutu mën a jàpp ne mën nga ko ak loo ko mën a fajal ci àdduna bu ko soxlaa bu soxlaa boppam la nga ko koy mën a fajal rek mooy moo am fu suturloo kon nag loolu rek moo tax ñu dëkk ñu leen di ñaanal yàlla di seeti nuñ ñëpp nuñ ko mën a yaatale ba nga xam ne yaakaar naa kilifa yi tamit bu ñu ko gisee wala buñ ko bàyyi danañ ko bàyyi xel waaye dañ foog ñu di leen ci dimbale parce que kilifa du càggi ni jàpp naa ne lu mel ni barab bi eh, am na yoo xam ne ku ko waxoon kilifa gu mag gi eh, dana dana ci wax wante nag bu fekkee waxuñu tamit ku ne naan am na yoo xam ne sax daal deesu ci mën a dugg ndax boo ko xóotalee day day day doy waar mm-hmm. waaye daal yaakaar naa ne Euh, farata joo xam ne daal war nañ ko bàyyi xel te jéem cee nag taxaw ndax daal li ñuy gis ci barab bi ci waxtu màggal walla waxtu dara nekk ci biir dëkk biir barab bii am ñoo xam ne salaw danañ sut ñi nga xam ne dañuy ay handicapé dañuy ay handicapé yoo xam ne mënuñu jóg léeg-léeg mu jafe lool ñu def ay ay ay kii yoo xam ne euh, wax dëgg yàlla daal doy na waar euh, damay jàpp ne ñun dañoo euh, dañoo li ñuy wax mooy euh, mbir mu ne dafa yoon wi benn kilifa la am muy sëñ Muntaxa ñun ñëpp ñu topp ci moom dëgg la ko ne sas la nag ndax sëñ Tuubaa la mbirum sëñ Tuubaa moom ku ne am nga ci sa part parce que kenn du ci la ci nit di amal moo koy lijjanti lijjantil boppam moo koy liggéey am na euh, bu ko defee nag bu day yu mel ne ñun buñ koy def wala buñ ci xalaatee buñ ci seetee koo xam ne mën na ko te dégg ca noonu nag ñun dañ ca yem ca loola moo tax ñun dañoo amagul sañ-sañu nag ndax dama ko wax tax naa ko itam ci kanam sëñ mu tax ne ko ñun du ñu sasaate ci xam nga loo xam ne da ngay dem xam nga kooku nit it ku toll ni kilifa gu toll ne moom nga wax ko loolu ñëpp di ko dégg ku la bu la comprendre sax mën na ne ak kii kat <laughs> mbaadu dara waaye day xam ne yow li ngay wax dëgg la ci yow te waxee woo ko lu dul li nga xam ne moom nga gisee rek dañu ne ñun du ñu du ñu wax kenn du ñu sase nit ni ko defal parce que ay euh, amuñu taalibe mbokki taalibe la ñu am la ñuy wax mu leer mbokki taalibe la ñu am mooy sëñ Tuubaa la ñu jàpp ne mooy sëñ Tuubaa mooy sëriñ bi suñu kilifa yi tamit di ay kilifa boo ko defee nag yu mel nii boo ko dee da ngay seet ki nga xam ne moom da koy mën a wax wala moom sax mu xalaat ko ngeen xalaatandoo ko kooku nga mën a sañ a yem boo taxawee nii nag sañ nga wax nag ne lii moom jaadu na ci fii loolu moom yéen ñëpp xam ngeen ko. tamit lu mel nii moom am kenn mënul xam lan lan moo war a wax tax loolu rek moo tax. Eh, waxuñu ko euh, moom sax doon na ma wax ay sëñ Mbàkke ma ne ko daal ñun fi ñu mën a yem mooy lii. yaakaar naa ne nag ñi nga xam ne ñoo fi taxawu ci barab bu jumaa ji ak yooyu danañ ko lii tamit danañ ko sàmm dañoo bëgg xool ñu koy ñu koy garder ñu koy sàmm Euh, sàmm bi itam danañu am ay parti yu ñu koy def lii xëy na ñuy jóge ci jumaa ji di am seen yitte te am fii barab boo xam ne ci fële la bokkul woon fii ci kër gi la bokkoon ak ñi nga xam ne dañuy ay kilifa romb fi wala kilifa goo xam ne dem na ba soxla wala ñi nga xam ne yi tamit ay ay nit lañ ay ñi fi jaar rek la waaye nag ñu bàyyi xel nag mënul nekk barab boo xam ne nag day day mel na yëfi mbedd rek ndax dafa laaj sàmm te ci kër la nekk kër doomi sëñ Tuubaa la voilà il faut ñu xam ne danañ ko teg ci yoon boo xam ne ñu koy sellal def ko parti yooyu koo xam ne ku ñëw soxla sa bopp ci anam gu yiite yiwee nga dem def sa soxla ñi nga xam ne ñoo jóge ci jumaa ji ak di ñu waxal war a waajit suñ soxlaa seen bopp kilifa gu fi jaarit bëgg soxla sa bopp te gis ne fii am na nga mën a ñëw la bopp ko defee ñooñu lañ ko def dañu wut ñu koy ñu koy sàmm bu baax mm-hmm. di ko di ko di di ko saytu waaw loolu parce que tamit nag barab yi dafa nekk barab boo xam ne eh, ku ne xam na ne barabu euh, suturluwukaay dafa war a sell mm-hmm. waaye am na ñoo xam dañuy defee ne rek foofu du war a sell te foofu ma war a sell sax mm-hmm. waaw parce que nit ki bu fekkente ne jàpp na ne Eh, lu lu génnul rek sellu sellu kooku bu fekkee day am jafe-jafe kon nag moo tax nañu nañu loolu rek lañ ko bëgg a def danañ xool nuñ ko tëralee wut ñu fi nekk di ko sàmm mhm. ñu am luñ leen warlul loo xam ne tamit danañ ko def incha allah